xam nga ñi génn fii d'abord ñi ci xam procédure barewul dama ni ñi génn fii d'abord ñi ci xam procédure xam ga barewul xam nga ay show kat a fi nekk ak ay wotkat si biis maam jaara faam ban procédure la xam dafa am art luy article ak lu dul article yow ñëw nga nee nga procureur de procureur plainte contre ex le demande ñun son yoon nekkul ci la procureur wa xam nga luy sun yoon nun assemblée Nous nous demander nous permettre justice mu def par la levée parlementaire immunité parlementaire ab député nous accuser muy doomu sénégalais ni mom ñun li nga lañ permettre à la justice mu def lolu la procédure bi la muy motion lañ ko def nañu ko à l'écrasante majorité pour que nous ratifier ratifier nañu ko nous vice de procédure il y a pas de vice de procédure tout simplement nga xamul luy pour procédure C'est un médecin e damay arrêté de Ousmane xamul luy procédure assemblée bi man kenn ne si je ne suis pas le plus vieux député je fais part des plus vieux députés à l'hémicycle 98 là, fi goût tey nak bu la la arrangé nga def la justice dafa Sénégal. procédure bi ci ah? est ce que ba muy dem ba muy dem salon ba complot ba muy ak est ce que complot est ce que loolu complot xam nga koy justice réew mi dana won sénégalais parce que dofuñu fi ku jangul droit xam nga luy atté xam nga luy dana wax sénégalais yi loola na mu demee su boobaa nag sénégalais yi danañ mën apprécier sen bop mais da nga def li ngay def ba paré nga di complot la man len la mën considérer xawma mo djoum xawma xaw ma warul won dem ci salon ba ku dee ci marché ba noo yaa tàggee sa bop étape bi top ci procédure bi moy ratifier nañ ko commission bi day dal di def réunion première réunion mu far bi bureau commission bi day am président am vice président am rapporteur ñu def sen rapport def seen investigation déglu Ousmane Sonko su ñëwé baxna su ñëwul dana désigner ku ko tontul ak la koy wax su paré su laajee ay enquête complémentaire assemblée dana ko def def rapport am présenter ko plénière ñu def ci débat soumettre rapport bobu au vote de la plénière su boobaa bu ñu ko voter ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mais évidemment d'ici peut-être une semaine à dix jours ouais. Ah oui, mais bien sûr. Donnons le temps au temps. Pourquoi se précipiter hein? De toute façon, l'essentiel, solo mais écoutez, vous savez, complot. nit ki gis naa yéen xam nga vous êtes un pouvoir extrêmement important les le journal les journalistes complot nit ki peuvent ko wax ci loo xam yow dañu la accuser parce que quand ils la accuser bo xamul won ndaw si du la accuser boo demul won fa ñu la jiiñee yef ya duñ la accuser xam nga man duñ ma accuser xam nga man accidenté bi auto yi rey Mamadou Diop sama kaw la j'ai été de tous les combats j'ai eu quatre fractures avec ce pied gauche là kinésithérapie lay def heureusement le président de l'amicale des kinésithérapeutes Cheikh Seck l'a dit il a dit le député Cheikh Seck ñun ñoko don doon masser j'ai fait beaucoup de cliniques de thérapie petite ou d'orthopédistes à Dakar pour se faire masser mais je suis pas allé dans les salons de massage où on me marque femme sexy dama ne ku mën a maye sa salaire war ngaa mën a fay loo faje sa yaram quatre-vingt pour cent la yi ma def massage yëpp barke salaatul fatiha barke Serigne Bamba fayu ma benn assemblée ko fay donc c'est un faux débat li mu wax tegul ci yon ci du dëgg. mais peut-être moom am na ay raison li tax mu dem. am ko soriwul këram. boo amee raison euh, bàyyi sa ñaari jéeg sa kër ga jël sa diw dem sa jànk ja ñu di la maase loola ca fekk y'a ko tey dégg nga baax li ma la man sama jabar may maase wala samay doom wala cabinet neurologie wala orthopédiste wala kinésithérapeute soo demee ci jigéen ñi xale yu ndaw ñu bind ca cabinet ba ay femmes sexy séduisante ñu di la maase loola fa dal yaa ko tey. ñun ñun la ñu jot demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko la ñuy jot xanaa dégg ngeen ni wolof venant du du ministre du garde ministre de la justice. sur la demande non parce que la demande de l'immunité parlementaire garde sceaux je transmettre l'Assemblée nationale mais procureur général près de la cour d'appel je garder jox procureur général Bobo, juge d'instruction juge d'instruction procureur de la république donc au dernier maillon de la chaîne au premier maillon vous parlez de juge d'instruction juge d'instruction jox ko Lansana Diaby Diaby voilà la procédure normale. gis nañ tey taskatu xibaar yi amuñu accès euh, pour des raisons euh, dañu ne euh, lépp ci mbas bi raison je ne gère pas l'administration de l'Assemblée. Oui, mais tey honorable vous êtes là pour le peuple sénégalais je ne savais même pas qu'il y avait pas accès. man damaa teel a ñëw dem sama bureau ba ma fa jógee ma dem ca salle ba. mais su fekkoon ne dañ may laaj pour ñu bàyyi leen ngeen dugg ñu bàyyi leen ngeen parce que ma ngi ni dama bayi sama temps bi ngeen ma wo ma ñëw wax ak yeen ah, ah, ah. du dëgg voilà. dama la ni plainte ab Adji Sarr ku ci ne du Ousmane Sonko loolu laa la wax demande d'immunité parlementaire bi ñu jox assemblée ku ci nekk Ousmane Sonko x nag laaj leen ko bind x ak fañ ko binde man xaw ma li x oo oh, oh, xanaa déggooy wolof man dama la ni ñun li ñu jot assemblée Ousmane Sonko ci nekk. ma ni ma ni det lu ñu naqarlu mooy ñoom tooguñu fo lu ñuy naqarloo. Soutenir que Moi, je soutiens la loi. que force reste à la loi su Ousmane liñ koy jiiñ toogee yàlla bu mu am na ko yoon topp su ko fekkente liñ koy jiiñ amul na ko yoon bàyyi topp ka nga xam ne moo ko taqal li am solo mooy dëgg réew mi dëgg ci la war dox voilà euh, bon li xew tey mais c'est tout à fait normal c'est une procédure normal am na ñaari sénégalais góor ak jigéen kii nee na kii tooñ na ma ndax doon na ma sàkku par force bind na plainte yóbbu ko ci yoon yoon pour mu egg du entamer plainte boobu il faut mu convoquer ñoom ñaar convoqué na kenn ki ñëw na muy ku jigéen ki déglu nañu ko convoqué nañ ko góor ki nee na du dem parce que règlement intérieur assemblée moo ma may pour man ma bañ a dem ma marqué le pas xanaa tey la nangu règlement intérieur assemblée bi ñuy def président commission d' enquête parlementaire man maa doon président bi règlement intérieur assemblée convoqué na ko mu lànk lu tax xanaa tey bi mu ko arrangé la nangu règlement intérieur assemblée mu ni du dem ñuy procureur ci plainte boobu ci procès verbal bi ñu ko jébbal mu demandé lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mais su ko demande ñun législative lañ. est-ce que le pouvoir législatif va bloquer bloquer du pouvoir judiciaire je dis non nous devons permettre à la justice de faire son travail Ce qui est ak na c'est ce yàlla nous xam ak donc foofu du fi sore ñu Nous assemblée parce que si fekkenteen commission de loi, daje na ñu désigner dix 11 11 membres La commission de loi, day faire rapport à la plénière pour nous ratifier Nous ñu plénière bi ñëw pour ratifier ko mu am motion préalable ou préjudiciable motion boobu un Manga def ko évoquer un certain nombre de faits sur le fait que x la convoqué te ñu ratifier x ñun x suñu yoon newu ca x diggante procureur la ak yeen ñi médias yi koy siiwal ñun li ñu jot ci assemblée muy courrier garde sceaux courrier boobu mu transmettre ko di courrier avocat général procureur général près de la cour d'appel kooku transmettre bu juge d'instruction ak bu procureur de la république Ousmane Sonko nous a wax de dañuy demander lever immunité parlementaire am suñu ko demandé mais man su doon man la man mais dama cay savoir pour que la vérité mën a ma dem lañu may jiiñ su fekkentee ni man la ma xamni man la su fekkentee ni du man ma xamni du man ma set ca ba wecc ndax tay kenn mënul atte kudul aji sar Ousmane Sonko ak Yalla ñom rek ño xam ce que la justice dira maintenant plus tard